li ci yéenekaay yi ci yenn kaay yi. jox leen ma xel yi te ngeen déglu ma ak noppi garmi ma daal di koy door ak yéenekaay yi yéenekaay yëpp daal di xëyandoo mbirum Adama Gaye mi nga xam ne yéenekaay yi démb moom la ñu xëyandoo tey ji tamit taxul ñu bàyyi ko noonu yéenekaay bi di l'observateur mi bindoon xibaar boobu yi xamal ne Adama Gaye démb ba mu taxawee daal dafa weddi loolu ba mu na loolee nekk na tamit nga xam ne ne mbir yooyu bu ca génnee ci jàmm dina porter plainte ngir topp ki nga xam ne moo def jëf ju ñaaw jooji page Facebook am yéenekaay bi dañu xamal ne moom daal weddi dëgg la def ndax ma nga ca tribunal ba waaye retour de parquet la am ay awakaam nag moo sax lu nu mel moo tax démb réere wul rëbës journal bii di la témoin di ñu xamal ne mbir yooyu daal noonu la demee waaye Adama Gueye démb daal dafa jaxasoo carrément ndax démb weddi ak nangu dong la fi nekkee nee na la ñu bind ca page Facebook am di wax ne avion njiitu réew mi yàlla na daanu ànd ak Macky Sall nee na waxul loolu libération di nga xamal ne gannaa moom amul liberté delluwaat ci kaso ñu dikkat ci jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ma ngay xam ne ne leen loolee daal dootuñu ko nangul kenn la tribune yéenekaay di yéenekaay des médias yi di ñu xamal ne article 80 daal mi ngi fi képp koo xam si ne waxati nga rek ñu fëgg la ko jamono joojee nag Ousmane Sonko li nga xam ne moo di buntu Abdoulaye Wade ngir ñu liggéey ngir ñu dal ci ñenn ñi nga xam si ne ñoo nekk kujje gi ca jamono joojee source a moom di ñu xamal ne xamal ne ñenn ñi nga xam ne doon nañ dem Màkka am na kenn koo xam si ne jot na caa faatu keneen ko ak faatoom yàggul dara nag mooy Binte Camara ca Tambacounda yéenekaay bi di ñu xamal ne moom tey jii lañu war a dellu si ci ay mbiram direct info moom daal di jagleel xëtam bu njëkk xale yi ay jafe-jafe yoo xam se ne ñi ngi koy jànkoonteel ak ñàkkum këyit ak fitnaal gi ñu leen di fitnaal ñu bàyyi loole lépp wax ci leneen ndeketrian jeexul ci réew mi ay jigéen yu doon dajale seeni kopparañ jébbal ko benn banque bu tudd CND yéenekaay bii duñu xamal ne nañu defoon waa Kawlax noonu lañu def waa Njaareem Njaareem seeni xaalis lañu dajale ne ko doññet yow daw ba suba jàmm